salut les amis ziar naa bu baax a baax dal ak jàmm ci seen podcast Wolof Tech bi leen di jox lépp lu jëm ci wàllu informatique ak nouvelle technologie yi maanaam xarala yu bees yi ci kàllaama wolof alors tey la dimanche 18 avril 2021 ñoo ngi wéy ci saison 5 bi ñu fas yéene waxtaan encore une fois ci beneen thème bu ama am am solo maanaam intelligence artificielle wala IA lan mooy intelligence artificielle fan la technologie boobu jógee lan mooy njëriñam pour nit ñi mais aussi pour entreprise yi lan moo composé technologie boobu ak naka lay doxee mais aussi yan jafe-jafe la ñu mën a ràññee ak l'intelligence artificielle alors pour waxtaan ci point yooyu yëpp nag euh, ak yeneen yeneen ak yeneen ak yeneen yu bëri yoo xamante ni dinañ ci wax tey jii nii dañu siy ànd ak suñu invité tey fii maanaam Thierno Ibrahima Diop nekk data scientist développeur expert en machine learning mais aussi bokk si ñi nga xamante ni ñoom ñoo créé Galsen AI Thierno Ibrahima ziar nañu la. delloo ziar bu wér a wér euh, Diba donc merci pour l'invitation déjà jaajëf ci invitation ak liggéey bu rafet bi ngay def ci podcast bi nii surtout en wolof bi surtout je pense que c'est la première fois que je vois un podcast wolof sur le domaine de la techno donc voilà c'est c'est cool quoi donc merci pour l'invite et j'espère que la discussion sera intéressante désolé maa ngi dugal ay français mais du ma ko sax tey te naa waroon <laughs> waaw non tey dina leer dina leer tey. bon plus ou moins. moom day metti maanaam xam naa ni yenn termes yi dina xaw a jafe trop ñu wax ko en wolof mais c'est pas grave quoi ah. comprendre quoi. alors tey nag je pense que sama turandoo laa dalal euh, déjà maa ngi lay remercier bu baax di la wax aussi que ne bi ma lancé épisode bi gis naa ay message gis naa ay commentaires ci réseaux sociaux yi ñuy wax wax ju am solo ci yow et je pense que tey euh, grand master laa dalal euh, bu maîtriser domaine am bu baax a baax macha allah et je pense que auditeurs yëpp dinañu am contenté pour déglu la ñu waxtaan ci intelligence artificielle nest pas. cool en tout cas je <laughs> maa ngi taxale daal en tout cas. <laughs> ok ñu dem directement ci sunu sujet tey bi maanaam l'IA l'individu numérique nous imite et nous dépasse. bu ñu waxee nouvelle technologie maanaam xarala yu bees yi dañuy wax aussi innovation yi nga xamante ni ñoo ngi koy gis bés bu nekk. maanaam ay chercheurs ñoo ngi xalaat saa ne di génne ay mbir yu bees lépp ngir dimbale doomu aadama ci dundam ak nekkinam fii ci àdduna ni muy jokkoo ak nit ñi ni muy liggéeyee ni muy saytoo wér yaramam ni muy jëfandikoo transport yi commerce yi mbay mi càmm gi napp gi sport jeu banque yi ak yeneen ak yeneen yeneen donc presque bépp domaine bu soxal nit ñi parce que je pense que lépp lu nekk ci àdduna rek ñun nit je pense que ñoo ko moom alors nouvelle technologie yooyu nag sori nañu torop ci ndimbal bi nga xamante ni ñu ngi koy apporter nit ñi bés bu nekk parce que chaque jour ñoo ngi jëfandikoo xarala yu bees yi dafa dem sax ba bokk léegi ci suñu dund dem sax ba nouvelle technologie yi aussi mën nañu anticiper ci suñu ay soxla fajal ñu ko sans pour autant sax ñu euh, ñu laaj leen ko wala ñu sant leen ko alors loolu moo tax nag tey ñu war a waxtaan ci l'intelligence artificielle moo koy woowee individu numérique bi seetlu nit ñi ni ñuy dundee euh, di ñu toppandoo ba sax euh, bëgg ñoo raw ci yenn fànn yu bari bari bari alors Thierno. Mhm. lan mooy intelligence artificielle ak technologie boobu noonu fan la soqee ko ok euh, très bonne question donc je pense que intelligence artificielle euh, fu mu soqee ko déjà ça va très difficile de dire parce que euh, c'est c'est même pas défini en fait parce que c'est c'est plusieurs choses en fait donc déjà qu'est-ce que c'est en fait intelligence artificielle technologie la boo xam ne nii son objectif mooy jéem a simuler toppandoo comme ni ñu ko waxee toppandoo nit loo xam ne da koy def loo xam ne dafa laaj intelligence d'où le mot intelligence. artificielle bi foofu mooy au lieu que toppandoo bi nit ci boppam toppandoo beneen nit machine mooy toppandoo nit bi d'où le mot d'où parce que. d'après ñun lu ñu xamee intelligence en tout cas nit lañ jàpp mooy intelligent ak peut-être les animaux ak niveau d'intelligence yoo xam ne bokkuñu quoi. ok euh, léegi objectif bi mooy fexe ba machine mun a toppandoo nit di def ay tâche yoo xam ne nii dafa laaj intelligence donc loolu mun na nekk plusieurs choses par exemple le fekk ñu mën a toog nii di waxtaan déjà dafa laaj intelligence ñu mën a déggoo le fait que euh, nit nga mun ko jox benn téere mun koo lire laaj na le fait que nit mun a wax juste wax déjà laaj na intelligence donc euh, buñ jëlee lu gën a terre à peut-être loo xam ne ni nit tam mun na ko ma jox benn nit par exemple benn texte ma ne ko wax ma euh, lan mooy tur fii lan mooy lan mooy fi turu nit lan moo fi turu place euh, lan moo fi nom prénom lan moo fi euh, verbe adjectif et tout sax loolu tam dafa laaj intelligence donc loolu lépp ay tâches yoo xam ni dafa laaj intelligence yoo xam ne ni luñ bëgg nag mooy machine mun a def le même tâches fekk du laaj nit ñëw di ko def donc loolu mooy toppandoo bi en fait donc lépp loo xam ne ni dañ koy def ci machine yi rek muy toppandoo intelligence mun nañ ko woowee intelligence artificielle quant fu mu jugee euh, depuis depuis presque le début de l'histoire on va dire nit toujours doon na automatiser ay affaire en fait donc di def loo machine loo xam ne nii dafa laaj intelligence mais mu automatiser ko ba nga xam ne nii machine bi moo koy def donc même ci ancien grec yi wala égyptiens yu yàgg ya ils ont déjà commencé woon nañ créer ay robot yi mën a def yenn affaire yi simple ay automatisme et tout ça donc voilà lu bees quant à nag terme bi terme intelligence artificielle na parce que loolu gars nee nañ genre ay mille neuf cent cinquante six ci benn conférence la gars yi créé un euh, terme boobu quoi benn conférence bu nekk bu amoon date masse collège boobu la gars yi créé terme intelligence artificielle mais li nga xam ne moom lay signifier moom yàgg na fi wax dëgg fa bees donc forcément gars yi ñu créé ay affaires yu bees ci même domaine bi et tout ça mais du du bees lu yàgg la wax dëgg fa yàlla après. Mhm. sur histoire bi ngay laaj aussi. Mhm. intelligence artificielle du lu bees mais buñ ko commencé appliquer ci ay machine ay ordinateur yi nga xam lu bees la. waaw ah, lu bees la donc boobu tamit on a eu on a eu des ci création bi ci évolution bi il euh, y a ce qu'on appelle souvent le AI winters donc winter pour dire quoi hiver on va dire mooy période boo xam ne nii c'était vraiment dur côté ya quoi c'est-à-dire que gouvernement yi entreprise yi dañ doon financer affaire yi amul benn évolution en fait. et dañu commencé woon décourager arrêté financement yi voilà après muy demaat ñëwaat di dundaat di demaat amat ay awinteuse ba depuis récemment ay à partir de deux mille et tout ça commencer am lu gën a stable quand même plus ou ba gars yi mën a utiliser affaire yi sans souci et tout ça quoi. ok ok ok. alors je pense que je pense que li ñu euh, déjà li ñu jot a wax ni c'est c'est très clair alors intelligence artificielle aussi euh, dañ koy dégg far partout en fi mu toll nii je pense que sax voilà képp ko xamul sax dégg nga ko alors ginnaaw bi ñu waxee li muy tekki ak un peu fan lay jógee bëggoon nañu xam aussi euh, lan la intelligence artificielle di jëriñ nit ñi ak entreprise yi lu tax aussi mu am importance surtout jamono ji ñu toll nii tey. ok je pense que loolu. ça rejoint li nga wax ci début mais le fait que technologie nous permet de faire des choses euh, plus ou moins complexes sans même des fois ñuy interagir. ok loolu moo tax surtout IA am IA am njëriñ parce que euh, y a pas mal de choses yoo xam ne ni IA dafay dimbali nit ñi parce que souvent quand les d'IA comme si IA c'est autonome quoi mooy def lépp mais dans la plupart des cas ñun ñuy utiliser IA dans le monde réel en tout cas c'est plus genre support quoi. donc IA daf ñuy dimbali pour ñu accélérer yenn affaires yi nga xam ne nii dañ ko war a def comme liggéey le fait que nga war a am ay photos yu bëri war ko trier euh, benn par benn xam lii mooy animal lii mooy lii lii mooy lii le fait que nekk ci ginnaaw di dimbali jëm la koo classer automatiquement nga xam ne yow vite fait da ngay vérifier juste pour xool est-ce que baax na. Euh, loolu mooy surtout apport bi IA gën a am ci jamono ji nekk nii quoi même si am na yoo xam ne jarul day automatiser mais. faut surtout noter que yu bëri wala confiance du 100 pour cent quoi donc confiance bi ñuy jox IA c'est pas toujours à 100 pour cent bon même nit quand même c'est la même chose. waaw ah même nit ñi aussi faut dire que c'est pas toujours 100 pour cent correct nit bu koy supporter wala IA supporter nit bi donc c'est vice versa mais voilà donc loolu moo tax mu am njëriñ quoi le fait daal daf ñuy dimbali suñ dund bi. yu bëri mu koy automatique je pense peut-être après dinañ rentrer dans les détails ay cas et tout ça mais voilà loolu moo tax mu am njëriñ le fait que day dimbali nit ci loolu di di leen aider ci seen business et tout ça quoi ok alors je pense que sax foofu lay glisser dem ci beneen question yi parce que comme ni ñu koy defee à chaque fois euh, exemple yi day tax nit ñi gën comprendre li ñuy waxtaanee alors est-ce que mën nga ñu jox par exemple ay exemple d'application euh, yi ñuy utiliser yi nga xamante ni dañuy ciy utiliser intelligence artificielle te ñun en tant que des personnes lambda ñu koy jëfandikoo voilà quotidiennement chaque jour quoi voilà ay exemple d'application. ok euh, peut-être pense que pour exemple yi peut ñu jéem a xool loo xam ne nii mooy gën terre à terre mais surtout loo xam dañ koy utiliser tout le temps. parce que y en a plein de plein de cas comme ça. prenons juste le ñun bu ñuy utiliser suñu mail yi par exemple. souvent automatiquement Google Gmail wala beneen service mail bu ñu utiliser daf ñuy wax mail bis spam la ou pas. Euh, te automatiquement la koy def du ñun duñ sonn di xool mail par benn par benn di ko éliminer naan lii spam la bëgguma ko xoolee tout ça wala ñu dugg sax di ko xool loolu intelligence artificielle moo koy def pour ok mooy classer euh, mail yi daal voilà classer mail yi xam lii spam na lii spam. si on veut même classer de manière plus aussi on a la possibilité de le faire avec l'IA mais de manière plus terre spam moom yaakaar naa ñëpp xam nañ ko te vraiment <coughs> on en reçoit pas mal te le fait que automatiquement IA ay fee nekk di ko def c'est c'est important. bu ñu jëlee yeneen cas peut-être sociaux yi nga xam ne ñëpp xam nañ ko ñëpp koy utiliser euh, des fois nga poster benn affaire Facebook euh, benn photo. mun laa identifier ne la nit nit nit bii moo nekk fii et tout ça loolu tam IA moo koy def IA moo mun a mooy xool photo bi mu ne bii tel nit la kii tel nit la kii tel la le fait aussi réseaux sociaux yi même suñu timeline par exemple Twitter. Mhm. mu lay muy xool ban post la lay la lay wan donc sooy xool Twitter du la wan n'importe quel post daf lay wan ah, post que man parce que man su ma ubbee sama Twitter li may gis bokkut ak yow sa bës li ngay gis bokkut ak keneen ak keneen muy gis. exactement. donc recommandation lay def te loolu tam IA moo koy def mooy xool nit ki yan poste moo ko war a gën a intéressé mais surtout ñoom aussi côté business bi lan mooy tax nit bi toog di xool moo koy mën a wanaale ay publicité en même temps donc que ça soit Facebook Twitter YouTube c'est la même chose am ay algorithme donc loolu lépp IA la donc et y euh, xam ne ni mën nañ ci waxtaan. mën nañ ko alors je pense que man épisode bi passé invité woon na invité woon na Pape Sega moom mu defar benn chatbot. ci wàllu ah, affaire ah. chatbot yi je pense ñoom tamit ci IA bi lañ bokk quoi exemple la. eh oui exactement par exemple chatbot aussi euh, derrière il y a en tout cas la plupart des chatbots on va dire parce que quelqu'un peut un chatbot je dirais même que c'est toujours de l'IA parce que même si dañ ko programmer IA la quoi mais côté machine learning surtout la bëgg quoi mais oui chatbot bi euh, intelligence artificielle mooy xool par rapport li nga laaj mu xool lan la war a tontu. ça forcément plusieurs étapes la mais voilà derrière IA mooy xool lan mooy tontu. lan mooy tontu comme reconnaissance vocale yi. Mhm. comme nga utiliser ay Siri Siri. par exemple ah, ci iPhone yi déjà am na ay reconnaissance vocale wax nga dëgg loolu tamit ci IA bi la. voilà exactement ngay wax mu xam exactement li nga wax mun ko bi bind ci texte. Mhm. traité ko encore génn yenn information ñëwaat en plus tontu la tontu boo xam ne ni wax lay nekkaat loolu lépp IA la wax boobu mu lay tontuwaat parce que yow texte la jël jox la wax donc amuloon kenn ko enregistré. nga xam ne li nga texte bi la jël rek wax la non IA mooy xam ñu jox ko texte mu mun a génne ban audio moo correspondre ak texte boobu donc voilà presque ñun moom suñu téléphone yi application yi moom. vraiment IA fépp la nekk. alors ñun kon dañuy utiliser intelligence artificielle sax xamuñ ko quoi des fois franchement. voilà naa ñu bëri loolu la mais moom wax dëgg yàlla mi ngi fépp du coup c' est l' occasion pour man ma glisser foofu tam pour nit xam ne IA. Uh-huh. comme ni ñu ko wanee ci film yi robot buy ñëw fii wala ay affaires yu dox. di xam fu ñuy yooyu loolu vraiment li en pratique suñu adduna bi moom. Ah instant ah yi ñu toll nii moom voilà c'est c'est partout quoi. ok c'est partout ça c'est sûr alors léegi euh, en fait dañuy dugg un peu ci wàllu technique bi pour xam tuuti naka la intelligence bi naka la intelligence art man moom man je pense que dama am problème sax pour wax intelligence artificielle tellement que xam naa ne <laughs> domaine bi moo rëy quoi <laughs> naka la intelligence artificielle bi di doxee ak lan moo nekk ci biiram. alors pour loolu nag première chose bi nga xamante ni Thierno moo njëkk ub sama bopp mooy naka la machine yi di def ba mën a am capacité jàng ay mbir ba mën a dimbale. Mhm. wala sax aw nit ñi ci seen liggéey ci yan méthode la ñuy jaar pour mën a jàngal seen bopp wala mën a jàng ay mbir quoi loolu laa bëggoon xam. question bu intéressant parce que man mii tamit loolu jaaxaloon na ma avant. <laughs> ok kon dimbale ma ci tey waaw ça a l'air un peu complexe quand quand ok déjà juste pour mettre les points sur les i IA domaine la bu vaste il y a plusieurs domaines sur IA yow domaine bi nga may laaj nii mooy machine bi di jàng loolu c'est surtout machine learning ok parce que comme ni ma la sànq man mun naa bind benn fonction boo xam ne da may jox dara ma def traitement retourner la mais maa ko de yëpp foofu amul jàng mais teewul IA la parce que mi ngi jéem a simuler euh, machine bi mi ngi jéem a simuler euh, loo xam ne nit moo koy def mu laaj intelligence. comme multiplication wala addition. ok maintenant machine learning bi mooy li nga wax noonu mooy jàng bi se lool boobu loolu tam mooy li ñuy utiliser gars yi souvent bu ñu nee IA quatre vingt dix pour cent de cas machine learning la wax ci gàttal mooy machine bi mun a jàng euh, donc jàng comme nit il am ci looy jàngee. Mhm. mais man su ma jëlee ah juddu ma rek mun a wax olof dama jaar di dégg nit ñi di wax olof ñu may jàngal lii lii la lii lii la ba ma màgg di ba am xam-xam boobu yëpp laa boole pour mën a wax olof donc dafa laaj ay données ci gàttal donc machine tam pour mu jàng dafa laaj ay données pour mu mun a jàngal benn machine nan la ñuy waxee olof il faut ma jox ko ay données donc ay texte olof par exemple ak tamit ay enregistrement wolof mu xool lan mooy ressemblance yi nga am diggante texte yi ak enregistrement yi. ban mapping la war a def pour mun a xam mot bi wala caractère bi ñu lañ koy waxee ci wolof bu jàngee loolu ba pare laa koy mun a jox benn texte mu mun ma wax en wolof texte boobu ma ko jox mooy synthèse vocale bi ñu doon wax sànq léegi nan lay demee derrière mooy pour ma joxe juste texte joxe ay enregistrement pour mu jàng nu ñu koy waxee c'est pas simple que ça parce que hmm. il faut mu am procédure donc lool données yi la nu muy jàngee mooy wax ok voilà waaw ah, parce que données yi mën nañ ko am nii mais naka lay jàngee données yi mooy mooy problème bi. voilà noonu lay jàngee donc nu muy jàngee peut-être je vais prendre un cas plus simple pour wax ni muy jàngee nañ jël dañoo bëgg a jàngal benn machine mu mun a prédire prix benn kër su ma ko joxee benn kër ak information yu mel ne euh, ñaata néeg moo am ci kër bi lan mooy surface kër bi ban zone la kër bi nekk donc. information boo xam ne daal day impacter prix benn kër parce que xam nañ ne kër Dakar moo gën a kër bu nekk Touba wala Ziguinchor wala yooy dans la plupart des cas voilà donc on doon information yëpp yoo xam ne nii dafa am relation ak prix kër bi on lui aussi prix kër bi prix bi su ma ko joxee ñaar yooyu dama ko wax ma ne ko nag jàngal ban mapping nga war a def ba nga xam ne di nga xam ne kër bi bu ma la ko joxee mu am temps de appartement tant d'étage tant de chambre surface bii la. lan moo war a nekk prime loolu laa koy wax mu jàng donc pour mu jàng ko comment ça va se faire déjà je lui donne après il faut que ma jox loo xam ne moom la ñuy woowee fonction de perte maanaam benn affaire boo xam ne ni dafay natt li nga xam ne moom la modèle bi di wax ak li nga xam ne mooy dëgg bi donc su ma ko joxee benn kër fekk vingt millions lay jar mu ne ma cinq millions lay jar dama ko war a mën wax ne ko ah saa jum nga de vingt millions nga waroon wax te cinq millions nga wax donc am nga différence de quinze millions donc loolu mooy fonction d'erreur maanaam fonction de perte ou d'erreur mooy loo xam ne juste day mën a mesurer juum bi. loolu mooy premier chose il faut mu mën a mesurer juum bi pour mun ko déjà optimiser li ñu naan optimiser donc il faut que mu mën a mesurer erreur bi su ma ko mesurer ba xam ne am naa benn métrique boo xam ne dina mën a wax lii mooy erreur bi lenn mooy des mooy nan laay optimiser affaire bi donc déjà modèle mun na maa jox. résultat léegi dama ko mun a nan nga koy optimiser ba nga xam résultat bi dina gën a baax parce que xam naa ne juum nga de temps donc dañuy créer ay algorithme yoo xam ne do algorithme d'optimisation la leen di woowee yoo xam ne nii moom la ñuy utiliser pour diminuer erreur bi nga xam ne nii mesure mesuré nañu ko donc suñ diminuer erreur boobu au fur et à mesure ñu koy diminuer par rapport ak données yi ñu am bu ñu fàtte ne données yi moo tax ñu mën ko mesurer loolu la ñuy jéem a ba à la fin modèle bi dina jéem a am les paramètres yi nga xam ne ni dina ko mën a permettre mu joxe prédiction yu baax maanaam suñ ko joxee benn kër mu mun ñoo wax selon caractéristique kër bi prix bii laa yaakaar ne moo gën a raisonnable pour maison bi en résumé on lui donne des données yoo xam ne ni mooy réel yi données yi nga xam ne ñoo correct moom mu jéem a optimiser au départ xamul dara comme xale bi doo ko judd mu prédire di n'importe quoi ñu mesurer erreur yi nga xam ne moom la def buñ ko mesurer donc ñu optimiser ko étape par étape di ko optimiser di ko optimiser ba erreur bi di gën a wàññeeku di gën a wàññeeku ba nga xam ne à la fin. Mhm. wàññi nañ erreur ba fi nga xam ne moom lañ mun a yem. ok léegi nag modèle boobu la ñuy utiliser du coup ne ah am nañ benn modèle de machine learning boo xam ne boo ko joxee kër. Mhm. dina la jox prix bu raisonnable pour kër bi lu muy jar donc noonu lay demee. ok ok donc yéen noonu ngeen di def ba moom moom mun naa wax ne daal yéen da ngeen yor seen ay ndongo daara tu di leen jàngal. bu ñu defee mhm. erreur ngeen jubbanti leen ba keroog ñuy gën a ñoŋ ci li ngeen di laaj quoi. noonu képp la machine learning di doxee. bien sûr fonction de perte yi ma wax nii mooy nu ñuy mesurer erreur bi day changer selon problème yi. donc ni ngay mesurer erreur pour prédire benn kër. nga xam ne benn valeur kese ngay si si bokkut ak nooy mesurer nooy mesurer erreur bu fekkee da ngaa bëgg a jàngal machine pour mu wax. foofu moo gën a compliqué bokkut ak booy mesurer erreur boo bëggee jàng benn machine pour mu def leneen ainsi de suite. donc erreur ñooy wute mais ça reste. les mêmes étapes. ok là je là là sama mu ngi commencer leer ci sama bopp bi quoi mu ngi commencer. leer ci sama bopp <laughs> mais alors mais alors dafa am beneen affaire boo xamante ni foog balaa ko c'est-à-dire boobu da ngay jël machine bi ah, c'est-à-dire di wax ne machine yi mën nañ jàngal seen bopp ñoom tamit. quand on dit que machine yi nañ jàngal seen bopp. Mhm. c'est pas vraiment affaire bu fàtte que ne lële moom machine bi parce que jàngal machine bi. waaw mooy moom mën naa leen baa ko jàngal mais en dama ko wax juste ay règles par exemple. ok automatiquement moom moo doon jéem a deviner les résultats c'est pas moi man nekkuma fi di fa a résultat de deviner moom moo jéem a man leen rek laa koy wax mooy benn fonction boo xam ne nii doo koy wax ne ko ah sa waay loolu laa ko wax. mais mosuma koo wax ni état détail yi maanaam mosuma ko wax ma ne ko benn kër il faut que kër bi nekk surface bi nekk dix euh, il faut que nombre bi nekk trois kër il faut que. mu nekk Dakar pour mun a jar vingt millions musuma ko wax loolu. loolu moo ko jàngal boppam loo xam ne da koy permettre mu xam bu juumee temps la juum. Euh, li ci des moom moo ko gérer moom moo def mapping bi ba xam ne benn kër pour mu jar vingt millions il faut que mu nekk Dakar nekk surface cent mètres carrés il faut que mu am trois trois appartements machine bee ko jàngal boppam peut-être li nga doon laaj je sais peut-être juste pour mu bu fekkee lool nga doon lool nga bëggoon wax mooy le fekk ñu ne machine mun na jàng saa ñu jox ko ay label yu leer par exemple li ma wax sànq mooy dañ koo jox ay kër jox ko ay li kër est-ce que machine mun na jàng fekk dama ko jox juste ay kër ma ne ko jéemal jàng ay affaire ci loolu quoi. ok ok mu jéem ci sax génne yoo xamante ni yow xamu woon ko quoi. voilà exactement loolu beneen type d'apprentissage bi moom la ñuy woowee non supervisé maanaam joxuma ko ay label label maanaam mooy prix kër bi par exemple il ma jox ko kër ak prix yi ma jox ko juste kër yi ma ne ko jéemal jàng nga jéem a séparer données yi quoi ba nga xam lii peut mun na séparer par exemple kër yi nga xam ni dañoo am piscine. Euh, waaw waaw si si nekk si si voilà am kër yoo xam ne amuñu étage. Mhm. voilà nekk feneen région yooyu mu jàngal ko boppam quoi. ok donc du coup boo waxee apprentissage euh, euh, non supervisé donc bi nga njëkkoon wax mooy supervisé. bi ma njëkk wax mooy supervisé maanaam dañu ko jox ay données jox ko benn wala plusieurs labels yoo xam ne ni moo ñu intéressé dañoo bëgg a def mu jàng mapping bi alors que non supervisé moom day nekk loo xam ne ni joxuma ko label dama ko jox ay données ma ne ko sa waay jéemal jàng ci lii. ok am na peut troisième boo xam ne moo gën a mhm. ci diggante bi la nekk moom la ñuy woy semi supervisé ak tamit am na bu ñu woy tam self supervisé mooy boo xam ne nii dama am ay donné amuñu label mais man maa créé ay label à partir de yooyu noonu c'est automatique quoi création de label bi c'est automatique. donc gars yi bu ñu naan semi self supervisé c'est dama créer ay label automatiquement par exemple ma am benn phrase ma am phrase yu bëri au moins waxuñu ma phrase bi par exemple sentiment bi muy décrire c'est positif ou négatif par ma jox juste man pour ma créer ay ay label dama jël phrase bi par exemple dama bëgg a dem Tamba loolu mooy phrase bi ma Tamba bi ma dindi Tamba bi. ma ne modèle bi léegi yow dama lay jox dama bëgg a dem wax ma lan ma war a topp ci lii xam nga label boobu maa créé sama bopp mais loolu bu ko jàngee ba mun a xam ne Tamba la ça veut dire que a xam ma jox ko benn phrase ma ne ko ah comme comme compléter ma phrase bi fekk boobu jàng na ba pare comme ça ma ñëw ma ne ko dama bëgg a dem compléter ma ko mu xam ne tàmbaala la wala Dakar mais mu xam ne fii war ma fee def dama bëgg a dem euh, par exemple lan dama bëgg a dem. kër exemple xam nga dama bëgg a dem kër kenn du ko wax ci wolof. non non kenn ko wax si si. voilà dama bëgg a dem dem. donc loolu mu jàng ko quoi donc loolu la ñuy woowee. Mm. apprentissage boo xam ne nii c'est self supervisé donc da euh, nga quoi saa saa nga saa ci monde réel. ok là je comprends euh, mu ngi gën a ci sama bopp encore une fois mais xam nga comme man dama sopp aussi des fois damay voilà def ay recherche yu ndaw xool tu vois. voilà c'est vrai que développeur la à la base mais bon. dama sob trop quoi maa ngi ci lu nekk alors damay dégg aussi souvent ñuy wax euh, deep learning c'est-à-dire lan moo nekk différence ah. entre machine learning ak euh, deep learning bon je sais pas deep learning nag laa ko mën a tekki ci wolof mooy xanaa mooy apprentissage bu xóot a xóot bi quoi peut-être. <laughs> waaw lool lool la de. <laughs> voilà ok lan mooy deep euh, learning ak lan mooy différence am ak machine learning. alors deep learning déjà foog ñu xam ne c'est juste une partie de machine learning. ok ok tout machine learning nu mu nekkee benn partie de IA intelligence donc deep learning vu que benn part machine learning on va juste dire moo ko différencier peut-être de machine learning traditionnel yi quoi mooy algorithme traditionnel yi nga xam ne ni moom la ñu xam ci machine learning avant deep learning bi ñëw donc deep learning une manière de def machine learning boo xam ne dañuy jéem a toppandoo nit nu muy nu muy nu muy cerveau nit quoi la ñuy jéem a toppandoo en fait. Hmm, ok je vois voilà donc loolu rek mooy différence bi donc euh, dañuy jéem a toppandoo dafay que cerveau nit dafa am ay neurones neurones yi dañuy communiquer entre ñoom pour génn information finale bi donc loolu la ñuy jéem a simuler ci deep learning donc dañuy créer ay différentes couches couches yi am ay neurones euh, pour mun a communiquer entre neurones yi di communiquer entre ñoom ci day traité jox kële kële traité jox kële ba à la fin ñu am résultat loolu mooy deep learning donc c'est juste simuler cerveau. mais foo quand même noter simuler là dañ koy def ak jéem yi ngande ngande simuler vraiment dans le sens le plus terre à terre du terme. on est dañoo sori lool lool lool lool cerveau nit ñi muy doxee. lool sax mais loolu la ñuy jéem a simuler mais avantage deep learning tamit peut-être juste pour wax ko mooy mhm. dafa universel quoi genre algorithme deep benn algorithme la mais dañ ko mën a modifier de telle sorte que dañuy régler problème yu bëree bëree bëri. ok alors que yi. Mhm. yoo xam ne c'est fixe kii lii lay def lii kii lii lay def alors que deep dañ ko mën a modifier de telle sorte dañuy def mën nañ def lépp loo xam ne ni machine learning da koy def et plus encore et plus encore ok ok je pense que dinañ dinañ gën a waxaat ci affaire boobu noonu après parce que xam naa ne euh, yéen ay borom xam-xam ngeen ci wàll bi mais am na aussi ñeneen ñu wax am nañ ci ay propos yu bëri je pense que ci kanam tuuti dinañ ci gën a wax dinaa laaj sa ay sa waxtaanoon nañ aussi ci yeneen technologie yu bëri bu ci mel ni big manaam maanaam euh, données yu bëri bëri yi ba jéggi dayoo waxtaanoon nañ aussi ci wàllum cloud ak aussi ci les algorithmes mm-hmm. alors Thierno technologie yooyu yëpp ban rapport lañ am ak intelligence artificielle. ok bonne question <laughs> parce que ñooñu ñooñu nga wax noonu ñooy tax ñu ñuy dox. <laughs> Euh, ah <laughs> kon gars yi ñoo tax ngeen di dox ah di dox du sotti. macha allah de. surtout développeurs yi développé application yi muy génne ay données. ñooñu ok ok ok. Euh, oui fait comme li ma sànq IA bu ko waxee de nos jours c'est surtout machine learning. Mhm. Euh, et machine learning day jàng on a dit pour jàng foog nga am ay données. Mhm. donc big data mooy données yu bëri. plus ou moins donc big data waaw donc big data mooy suñ moom moom la ñuy wax moom mooy suñu essence bu ñu dee oto big data ah. <laughs> ñu gën lu a am ay données di gën a daw. ah oui ah oui ça yi lu mu gën a bëri rek moom affaire yi di gën a baawar donc ñun moom ay done mooy tax ñuy dund. donc euh, big data moom voilà moom mooy suñu essence ci gàttal cloud moom. Mhm. Euh, mun nañ ne. leen loo xam ne waxaguñ ko mooy il nous faut des données <laughs> mais il nous faut faire beaucoup de calcul ñun li ñuy calcul dafa bëri machine learning dafa laaj calcul yu dul jeex te calcul yooyu foog nga am machine yu am doole souvent kon deep bi nga wax pour nga def ko souvent da ngaa soxla carte graphique pour gaaw affaire yi gaaw te carte graphique yooyu daa cher donc jënd ko moom ay yu bëri day xaw a cher lool wax dëgg fa yàlla du coup pour ñun ñu def suñu ay traitement on <laughs> dem ci cloud bi parce que cloud da ngay am foofu ay machine yu am doole nga mun koo louer benn une heure de temps deux heures de temps benn jour def say calcul yu dul jeex pare fay just li nga li nga li nga utiliser. li nga utiliser foofu la cloud amee njëriñ ci IA. Mhm, mhm. moo tax IA boo gisee entreprise yu ndaw yi di ko mën a utiliser jamono ñu toll nii. Mhm. c'est parce que mun nañ louer ay machine sans ñu jënd ko mu cher ba bëgg a dee ñu louer ko juste benn. journée par exemple mu dikkee ñu ay cinq mille wala dix mille ñu def suñu traitement ay calcul fay dem suñu yoon. c'est cool donc ah, loolu la jëriñ sama invité cloud bi doon wax sax am ay appartement quoi luy ay appartement <laughs> mooy Arona maa ngi koy saluer quoi <laughs> voilà jeex na dañuy luye foofu ay ay ay appartement def suñu liggéey delloo appartement yi ok ok alors que duñ li moo gën a yomb nga jënd kër nga jënd luy appartement moo gën a yomb jënd appartement da ngay ñëw fekk fa lal beeg luxe beeg tout tout tout lépp a nga fa déjà voilà c'est ça da ngay ñëw rek utiliser demaat sa yoon donc cloud foofu la amee njëriñ ci IA quoi loolu mooy impact am big data tam wax na lan mooy impact am ok ok ça c'est cool ah mais algorithme yi aussi algorithme yi euh, moom moom tamit voilà algorithme yi voilà merci fàtte woon naa algorithme yi en fait algorithme yi on a beau dire machine learning Mm-hmm. mais pour que machine bi jàng il faut que nga créer algorithme bi koy tax mu jàng c'est un peu compliqué que. non affaire bi xam naa ne c'est compliqué. xam naa ne man xam naa ne moo tax moo tax may fàttali nit ñi nag ne leen bu ñu defee épisode ba pare ku nekk na dem ci internet bi def ay recherche parce que li ñuy wax fii rek doyul la tu vois c'est pas parce boo jigee ci podcast bi da ngay xam lépp mais buntu la quand même pour nga mun a dugg ci internet bi xam fan nga war a commencer sa say recherche ak yu demee mais dem nañ ci bibliothèque yi voilà peut-être que après dinañ wax ci comment dugg ci domaine bi quoi fooy jaar affaire yooyu mais. Ouais. oui donc algorithme yi. Mhm. machine bi doo ko jox ay données automatiquement muy jàng ma malheureusement du bokkut ak nit nit yàllaa ko defar ba pare boppam bi cerveau baa ngi foofu paree na mhm. pour loolu. ok soxlawul algorithme mais ñun moom. Mhm. il faut que machine bi ñu def ci ay algorithme yoo xam ne nii. moom moo koy permettre par exemple fonction de perte bi ñu doon wax liy mesurer erreur bi. ok loolu algorithme boo xam da nga koy bind la. boo ko boo ko bindee ba pare itam doyul il faut nga wax machine bi machine bi il faut nga wax ko su ma la joxee fonction de perte bi. Mhm. nan nga war a jaar pour wàññi ko pour wàññi fonction de perte bi loolu waxuñ ci sànq. xam nga dañoo ne da koy wax erreur bi. mais waxuñu opti wax nañ algorithme d' optimisation. algorithme d' optimisation boobu nit a koy bind machine bindu ko nit moo bind algorithme d' optimisation bi machine bi moom lu muy def nag mooy day exécuter algorithme d' optimisation bi boole algorithme bi nga xam ne moom mooy mesurer erreur bi ñaar yooyu lay boole di ko tourner étape par étape de manière itérative ba am modèle bu final bi donc algorithme yi moom ñi ngi fépp moom algorithme moom sans moom du sotti parce que machine bi balaa jàng dangaa ngaa bind algorithme yi ba pare mu koy exécuter di ko itérer pour mun a jàng. ok. mm sa ok ça c'est ça c'est ça ça c'est cool je comprends alors je je je sais que maa ngi remercier bu baax euh, Elias Waliba. moo ñu defaloon benn épisode ci wàllu mhm. algorithme et ça m'a permis un peu ah. li ngay wax ni ma am ci benn idée mën a comprendre et je pense que c'est la même chose aussi pour euh, auditeurs yi ñuy déglu yëpp alors am na aussi beneen affaire boo xamante ni daf ma koy dégg te daf ma jaaxal aussi boo bëggoon naa ci ay leeral quoi c'est-à-dire damay dégg ñu wax intelligence artificielle forte ak intelligence artificielle faible alors lan mooy IA forte ak IA faible ak lan moo leen wutale bonne euh, ci benn sax am mhm. na lu ñuy wax tam super super IA donc le super IA quoi. super euh, ok. waaw donc on va essayer de le trois peut-être. ah allez, vas-y, euh, donc IA IA IA faible mooy weak AI. Euh, mhm. mooy IA boo xam ne ni ci gàttal. bu ñu ko simplifier mooy benn tâche dong lay régler. je donne des exemples. ok. defar benn IA benn modèle boo xam ne nii da nga koy jox image bi mun laa wax image bi muus la xaj la xar la bëy la lan moo ci nekk IA boobu loolu képp la man loolu benn tâche la mun a régler IA bi ñu doon wax sànq bi nga xam ne day jéem a prédire prix benn kër loolu képp la man donc loolu la ñuy woowee weak AI mooy IA faible bi nga wax euh, IA strong mooy dégg nga strong sax IA bu fort euh, bi. IA bu fort bi mooy strong AI mooy. IA mhm. boo xam ne nii mën na gérer plusieurs tâches en même temps comme nit man maa ngi nii di waxtaan ak yow di wax olof euh, di waxtaan ci ay domaines yu dul jeex ay di di wax ci lii wax ci lii. te xam naa ne boo ëttul boo ëttul yaa ngi xalaataale ndogu bi en même temps. voilà ak ak ak ak ak xiif bi ma xiif bi te maa ngi ci génn <laughs> donc tu léegi. voilà suba mën nañoo ñëw fii ñu defaat beneen podcast. ñuy wax français. ça c'est maa ngi ciy génn mën naa génn fii léegi xam na laay def ba dem Auchan bi jënd fa dara jënd fa lii jënd fa lii wala ma dem marché bi def fa lii def fa lii xam naa nu may génnee peut-être dem sport dem football xam naa def yu dul tâche yu dul jeex. loolu la ñuy woowee strong AI donc strong AI moom mooy IA fort bi dafa dafa mun a def dafa war a mën a def nit ki tâche yi mën a def multitâche quoi. mooy mun a jàng affaire yu bëri mun affaire yu bëri en même temps quoi. ok loolu yeggaguñ ci. waaw pour muy leer. loolu ah, moom yeggaguñ ci xaaju ba fa yegg. yegguñ ci loolu IA bu mun a yu bëri yegguñ ci quoi. sori nañ fa ñun ñun yi moom jàppal ne. Mm-hmm. recherche bi ngay gis li muy bari bëri lépp xum xum bi yëpp. <laughs> ñu ngi ci bu faible bi nekk. ñu waaw waaw. boo xoolee cas yi ma la fi jox yëpp. fait faible la bu mën a prédire benn. mais problème bi xam nga lan la ceex na mhm. ci problème bi wax ma bi lañ toll mais man ñi moom maa xalaat super bi kon fi ma luy super bi moom maa ngi ñëw <laughs> maa ngi bi donc juste pour voilà ñoom ñu ñëw li ñuy compliqué lépp Facebook nga dugg mu la photo bi lii ak lii moo fi nekk benn modèle boobu loolu la man modèle bi def reconnaissance vocale loolu dong la man même ne serait-ce que langue yu bëri sax on a du mal à supporter boo xoolee souvent bu nga def tradition Google boo demee day jël benn modèle boo xam ne mooy gérer français anglais bi gérer anglais arabe bi gérer lee ak donc on est carrément du week AI même si on à s'en débrouiller waa se débrouiller un peu pour gérer ay langues yu bëri mais loolu ba léegi week AI le plus ou moins quoi parce que ba léegi gérer wuñ tâche yu bëri bëri yu différent nag moom mooy mhm. jéem a dépasser nit mooy IA boo xam ne nii mun na def lu nit hmm, mënul ok ok donc buñ nee mun na def lu nit mënul il faut préciser des choses def lu ñu mënul firiwul ne may am yow bu ñu jëlee loo xam ne day classifier ay image peut-être moo moo ma gën a aay man ci classifier ay image parce que mun naa am xaw ma lii xaw ma lee loolu waxuñu loolu parce que su ma ko jàngee itam dinaa ko mun def lu nit mënul mooy nga def loo xam ne ni même su ma ko jàngee mënu ma ko loolu mooy super IA maanaam IA boo xam ne day dem ba gën a mus fuuf nit donc loolu moom voilà wax ko dong lañ toll loolu moom foofu lañ gën a sori foofu. <laughs> Ah c'est comme Strong AI ko moom. Mhm. voilà mais loolu mooy trois trois types d'IA yi nga xam ne nii moom lañ. xamante ne am na quoi. ok ah, ok ah. là c'est hyper intéressant parce que xam naa ne ba léegi rek dinañ delluwaat ci affaire boobu ci biiram parce que am na ay questions éthiques yu am ci biir et tout ça donc loolu dinañ ci dellu si alors. comme aussi ni ma ko waxee woon sànq ci introduction bi intelligence artificielle nekk na mbir moo xamante ni dafa xew si jamono voilà ñu ngi koy dégg ci ay fànn yu bëri bëri bëri bi alors est-ce que mën nga ñu wax un peu euh, ci yan domaine lañ koy gën a utiliser actuellement quoi ci yan domaine voilà. aha euh, IA domaine ñu koy utiliser actuellement il y en a plein donc fi ñu koy gën a utiliser je dirais mooy côté déjà coté business on l'utilise beaucoup. donc quand je côté business mooy tout ce qui est ay e-commerce mën def ay recommandations. Mhm. Euh, mun a prédire kañ laa war a def promotion par exemple comme entreprise télécom yi tamit mun a xam promotion yi fan lañ ko war a def yan mhm. promotion lañ war a def ak kan lañ war a jox promotion bi pour nit ku nekk ban promotion lañ ko war a jox donc côté business moom y en a mhm. ok ok euh, cest à euh, mu mu mun na tànn yan nit la war a cibler pour jox leen telle promotion ak yu quoi. exactement mooy recommandation bu ñu doon wax comme ay filtre ci àll Facebook mu xam ban post la war a wan souvent même algorithme la ñuy utiliser c'est juste données yi ñooy changer ok ça marche. waaw mhm. euh, côté santé aussi même si foofu moo gën a restrictif parce que foofu moo gën a sensible et tout ça mais gars yi ngi di liggéey bu baax a baax pour par exemple IA mun a dem loolu moom c'est déjà le cas nga mun ko jox ay rajo mu wala wax kii feebar na wala feebarul et tout ça sans bi ñëw. Euh, xool rajo bi jël temps am détail parce que faut pas oublier loolu c'est des choses qui sont hyper intéressantes parce que fii par exemple jëloo Sénégal ya a pas mal de places boo xam ne ni amuñu ay hôpital yu doy wala ay docteurs yu doy loolu donc loolu su demee ba développé wu voilà ça va vraiment beaucoup aider nit ñi côté santé et tout ça le même que IA mooy def ay diagnostic mën a def ay opération yooyu yëpp gars yi ñu ngi ciy liggéey bu baax a baax a baax c'est juste que ni voilà c'est pas si popularisé ak utilisé que benn instant ok tout comme lépp lu jëm ci affaire productivité nit ki gën a mun a productif donc la fait que yow nga mun a ñëw comme spam bi ñu joxe woon loolu productivité lay yokk euh, le fait que aussi voilà mu mun a gérer ay IA mun a gérer sa sa calendrier euh, mun a xam yow yan réunion moo gën a importante wala affaire yooyu noonu loolu noonu productivité waa lay nekk le fait aussi nga mën a utiliser reconnaissance vocale pour wax ak Siri saa nga nekk foofu di bind étape par étape lii ak lii laa war a def wax ko rek mu tontu la productivité la donc côté productivité moom foofu moom yaa naa plein plein plein de use case yoo xam ne nii yaa mu ngi fay wane boppam voilà donc euh, peut-être dans d'autres domaines yoo xam ne nii ñoo gën a euh, générique on va dire côté agriculture dañ fay appliquer IA pour mun a xam fan lañ war a arroser par exemple ak ban heure lañ war a arroser Euh, fan mu am plante yu bon et tout ça. yooyu yëpp IA ñu ngi koy utiliser bu baax baax ci côté agriculture boobu tamit. ok ok ok. ak yeneen yeneen domaine quoi agriculture. agriculture sant mais mais mais mais mais mais je pense que aussi am na aussi ak transport bi avec euh, voiture intelligent yi ñoom tamit je pense que ci lañ bokk. voilà côté transport bi aussi am pa gaay donc foofu tamit gaay ñu ngi jëm a ay oto yoo xam ne nii dañuy dawal seen bopp soxlawul chauffeur. avec le euh, fameux Elon Musk euh, euh, ak seen Tesla yeeg yooyu noonu foofu tamit même si foofu tamit des na quoi ba léegi gars yi amaguñ lu satisfaisant dëgg-dëgg mais on a des choses qui sont très prometteurs carrément oto buy daw sans chauffeur et tout ça donc côté transport même mais même en dehors de ça parce que loolu c'est le côté plus fun mais le fait que nga mën a utiliser IA pour gérer transport xam feu bi kañ la war a tàkk kañ la war a vert kañ la war a orange le fait mm-hmm. a gérer circulation et tout ça mm-hmm. loolu lépp IA def liggéeyam bu baax a baax ok am na aussi benn euh, benn salon bu moom mos dem Paris mais gis naa aussi euh, benn yëre boo xamante ni bu ko sportif bi solee euh, dafay permettre mu transmettre je pense ay information ci vitesse bi muy dawee ci kii état kii mi comment dire bon di joxe information ci ci sportif bi daw quoi loolu aussi je pense que ci ci IA bi mooy def loolu quoi wala. peut-être foofu ñu séparer tuuti parce que. Hmm. su fekkee il a comme ni ñu doon wax sànq ba léegi machine learning. foofu y a deux choses qui se qui se passent. par exemple li nga waxagum nii. Hmm. y a pas vraiment de machine learning parce que loolu. Hmm. on a juste des collecteurs donc. Ah, ay ah, ay capteurs yeeg yooyu quoi. ay capteurs yuy jël information di ko transmettre maintenant fan la IA di ñëwee foofu mooy. le fait que de données yooyu nga am benn modèle machine learning bi mun a ñëw mun laa wax ah sa peut-être boo continuer nii dans cinq jours dix jours di nga obèse wala boo continuer nii dans cinq jours dina baax lép yooyu ay modèle IA mooy intervenir foofu donc données acquisition bi mun na bañ a am mais utilisation données IA foofu lay ñëw tout le temps utilisation données. ak mën a def prédiction mën a def ay analyse quoi. ma soxal trop dafa euh, ah. Covid beeg demee noonu bu fekkee ni IA mun na jëf euh, dimbali nit ci domaine boobu moom c'est hyper intéressant alors. bii que laal nga Covid bi. laal nga Covid bi Covid bi gars yi góorgóorlu ci bu baax a baax parce que. gars yi dem nañ ba créer fi euh, benn modèle IA boo xam ne nii juste par rapport ni ngay sëqatee. Mhm. dina mun a joxe est-ce que da nga am Covid ou avec une mhm. probabilité vraiment très bonne. donc li muy jum doonul woon bëri. Mhm. donc foofu tam gars yi liggéey donc voilà IA moom. Mhm. santé moom vraiment ni ngi ci def liggéey bu baax ak yeneen domaine yoo xam ne peut-être amuñu temps wax ci mais domaine yëpp presque booy jël moom yaa mi ngi ci léegi yaa mi ngi ci quoi macha allah alors Thierno comme ni ñu ko waxee aussi sànq bi ngay expliquer euh, intelligence artificielle fan la soxee ko technologie bu existé la bu yàgg ba léegi ah yàgg na ba mu existé nit ñi aussi yàgg nañ xalaat euh, lu ni mel mais ci année yi nga xamante ni la ñuy weesu la gën a am doole avec l'arrivée big data yi ak cloud bi ak aussi algorithme yu bees yi ci wax alors li ma bëggoon a xam foofu mooy yan métier la ñu gën a ràññee avec le développement de l'intelligence artificielle ak yan compétence la war a euh, la nit ki war a am pour mën a liggéey ci euh, liggéey bu baax ci wàllu intelligence artificielle. ok bonne question après ça dépend am na métier yoo xam ne nii ñooñu. ci machine learning bi la ñuy liggéey ci IA bi directement am na ñoo xam ne. Mhm. c'est les dañuy tourner autour de de de périphérie bi quoi. ok ñooñu ba léegi mën nañ leen boole ci IA bi mais bokkuñ ci carrément quoi mais ñoom mhm. ñoo ñuy xeetali mooy li ma la développeur bi ngay wax noonu dañuy xeetali bu baax parce que mooy créer application application ñooy générer données yi. Euh, cloud bi ngay wax noonu tamit. ça aide beaucoup donc ñi nga xam dañuy def DevOps. di mhm. liggéey ci cloud et tout ça il nous aide beaucoup avec IA forcément ñooñu tam seen métier day gën a importance parce que leen di gën a soxla. donc loolu tam il faut prendre en compte ñooñu quoi donc ak data ingénieur bi nga xam ne ni tamit. Hmm. moom profil boobu mooy gérer données yi big data yi xam nuñ koy traiter euh, def ay agrégation et tout ça kooku tamit avec l'IA on en a besoin de plus. ok donc euh, entre autres maintenant bu ñu jëlee nag métier yi nga xam ne ni carrément c'est lié au machine learning ay à l'IA. Hmm. mun nañ ne data scientist la. ok. donc kooku moom moom day liggéey ci données yi déjà même acquisition bi def ci liggéey xool analyse données yi est-ce que am na ay problèmes et tout ça cleaning bi et tout mais tamit mhm. day def ay modèles de prédiction et tout ça. am na tamit ku ñuy woowee ingénieur machine learning. kooku vraiment jege na data science trop parce que kooku mu ne ne moom fi muy gën a focus mooy créer modèle alors que data science bi tam day focus ci ay analyse de données yi clean données yi nettoyer leen et tout ça quoi. donc côté machine learning purement dit moom data scientist la. ak ingénieur machine learning après de temps léegi nag affaire yaa ngi yokk gaa yi affaire mhm. yaa ngi yokk parce que léegi am na ay rôle yoo xam ne leen di wooyee ML ops ñoo xam ne nii au lieu de DevOps ML mm. ops donc ñoom ñooy euh, aider data scientist ak machine learning ingénieurs yi ñu mën a déployer modèles yi euh, gérer données yi de manière correcte différent gérer version yi parce que ni ñuy gérer version ay données ak ay c'est vraiment différent de ni ñuy gérer dans le domaine du développement quoi ok donc voilà trois rôles yooyu daal ñoom ñu gën a vraiment présent entreprise et tout ça même si y a d'autres rôles comme ñi nga xam ne ñooy gérer éthique côté éthique bi côté mhm. légalisation et tout ça donc vraiment il y a plein de mais trois rôles yooyu daal ñoom ñooy ñoom ñooy mettre li nga les mains dans les cambouis ci <laughs> bu ñu machine learning trois trois yooyu la quoi trois yooyu la quoi alors mais mais alors tey man su ma bëggoon a jóg euh, pour def intelligence artificielle ak yu demee noonu yan compétence laaj en de formation ok donc bu ñu jëlee trois rôles yooyu noonu euh, surtout data science ak machine learning ingénieur euh, ingénieur learning bi moins ñooñu seen balaa boobu boo ko bëggee nekk day am compétence yu mu laaj. ok déjà compétence bu mu njëkk laaj mooy développement. gars yi souvent bu ñu nee compétence mathématique la ñu xalaat mais développement. dama ne ñu nii. moo gën a am njëriñ fuuf que mathématique boobu ngay liggéey ci machine learning ak data science ci entreprise yi pas pour recherche mais ci data ci entreprise yi même recherche plus ou moins recherche moom c'est sûr que ñaar yëpp la laaj mais côté data science entreprise moom foo nga mën a développer vraiment pourquoi c'est simple parce que mathématique bi li may am am njariñ lépp la plupart de mathématique bi ngay soxla pour def data science ak machine learning nekk na jël déjà implémenté ci ay framework donc yow souvent benn méthode ngay woo mu defal la côté mathématique bi comme optimisation yi dérivés yi et tout ça quoi. Mhm. donc mun a développement mooy qualité bu ëpp njëriñ pour man vraiment. ok qualité bi ci topp bien sûr mooy mathématique. parce que même si algorithme yi dañ ko implémenter ba pare la plupart donc war a mun a comprendre parce que soo ko comprendre ci ngay mun a xam bu baax bu doxul lu tax doxul parce que. def modèle muy prédire ñëpp a ko mën léegi ku mën a développer mën na ko même ku mënul développer sax presque am na ay outils cloud yu def mais lu dox lu ko tax a dox lu doxul lu ko tax a dox loolu dafa laaj nga xam luy dem ci biir mu ngi mel ne boo utiliser développeurs yi utiliser framework Symfony Angular wala yooyu su fekkee yow xamoo développement avant loolu nu muy doxee. problème bu amee da ngay xoole rek. Ah, am na problème yoo xam ne bu amee doo ci mën dara. da ngay xoole rek moom rek voilà c'est ça exactement utilisateur avancé rek. mais foog nga xam lu muy doxee xam IA bu ñu koy optimiser fan la jaar étape par étape algorithme bi may utiliser lan mooy intuition yi lan mooy avantage yi lan mooy inconvénient yi kañ laa ko war a appliquer kañ laa ko war a appliquer loolu dafa laaj nga xam lu muy doxee donc mathématique bi foofu la amee njëriñ ak algorithme donc ñaar yooyu mooy compétence yi ëpp njëriñ après y a les compétences qui tournent autour mooy loolu mooy presque compétence développeurs yi mooy nga mun a xam. Euh, nan laay gérer Git nan laay versionner samay code donc affaire yooyu lan mooy bon loolu mooy côté côté yi nga xam ne ñooy tourner autour quoi nan laay gérer samay données euh, yan outils ñoo am affaire yooyu donc loolu mooy troisième ak tamit xam outils yi euh, yu outils de base yi nga xam ne ni Vercent daf koy soxla donc comme développeur il faut nga xam ay outils donc outils fii tamit c'est la même chose xam ay outils comme TensorFlow euh, ay outils de lecture ingestion de données comme ay Pandas affaire yooyu loolu c'est important donc après selon li nga bëgg def ci vas approfondir plus su certaines choses en fait yow NLP rek nga bëgg a def wala yow mhm. kii li nga bëgg a def voilà. alors je pense que dina am beneen deuxième épisode boo xamante ni toujours ci intelligence artificielle lay doon mais su boobaa dañuy gën a dugg ci aspect technique bi tu vois parce que wax nga sax léegi euh, mun nga war nga mën a def développement war nga mun a def yu bëri mais am ngay outils yoo war a mën a utiliser même développement bi aussi euh, mais rapidement yi bi yan langage gën a efficace pour euh, de l'intelligence artificielle su fekkoon dama war a citer benn langage rek Python laay wax. Hmm. Python kon nañu parce que Python mooy langage bi gën a présent quoi. <laughs> Python mooy langage Elias <laughs> voilà. mooy sama langage man tamit de. man jeex na kon mooy seen langage ah maa yow ci pythoniste pythoniste nga bokk xaw ma seen group boobu. mais cent cent cent pour cent Python laay parce que bi may def lépp chaque jour Python laay utiliser. Python la su ma ko défendre vraiment je serai ingrat. <laughs> alors tey c'est cool c'est cool alors donc du coup je pense comme ni ma ko waxee dañ defaat benn épisode boo xamante ni dinañ gën a dugg dans les détails pour wax ci euh, aspect technique bi incha allah peut-être dañ la invité yow ak Ibrahima sax mu nekk émission bu graw tu xam ne nii technique wax ko ci audio mais bon on va ah que importance bi rek mooy waaye am benn euh, benn porte d'entrée pour mun a après dem rechercher sur internet ak bibliothèque yi ak yu demoon. tout tout à fait alors intelligence artificielle aussi comme ni nga waxee dimbale na nit ñu bëri euh, ci seen liggéey maanaam ci liggéey yi nga xamante ne ñu ngi koy def tey jii yan métier nga xalaat ne mën nañoo wax ne dina disparaître dans le futur avec le développement de l'intelligence artificielle. point sensible. <laughs> waaw da ngay bañ gars yi ne la ah, ah, da ngay bañ gars yi ne ma euh, bon allez vas-y. loolu moom réponse bi pour mu gën a gàtt mooy peut mhm. lépp loo xam ne nii. Mhm. c'est facile à automatiser. ok bépp liggéey boo xam ne nii yomb naa automatiser. Mhm. très bientôt ça va disparaître si c'est pas encore si c'est pas déjà le cas parce que yaa a déjà des yoo xam ne ni disparaître nañ ba pare te IA moo fa jaar. Euh, euh, comme ban comme moo jox ay exemple voilà moo jox ay exemple traducteurs yi. gars yi de moins en moins dañuy utiliser ay traducteurs parce que bu njëkk ba boo amee français bu ko yóbbu anglais da nga yóbbu ko ko traduire alors que léegi Google yi même su fekkee sont pas parfaits à cent pour cent mais mhm. vraiment euh, gars yi dañ koy utiliser te bu fekkee ne gars yi dañoo sox traducteur pour dañ koy fay lu gën a tuuti alors par rapport lañ ko daan fay parce que am nañ benn base ba pare jaar na fa ba pare wala keneen jaar na fa voilà yow tuuti ngay corriger lépp lu ñu automatiser moom saa yi mi ngi disparaître am na yeneen yu dul jeex yoo xam ne mi ngi mel ne ni gars yi def ak révolution industrielle 3 bi rek mooy baykat yi par exemple le fait ñu mën a utiliser ay tracteurs et tout ça ça fait que liggéey nit ñu bari soxlaatuñ leen c'est la même chose ak IA bi donc liggéey yoo xam ne nii mën nañ ko automatiser vraiment lu gën a yu gën a yomb automatiser donc lu ñuy gën a dem par contre dans le futur ñuy gën a mën a éliminer liggéey yoo xam ne ñoo gën a jafee automatiser parce que loolu la ñuy ah. def que ah. waaw affaire baa ngi affaire baa ngi menacer emploi bi de. ah si si parce que traduction bi quand dafa jafe woon tradition ah, bañ ci commencé am résultat yu baax yàggul. alors que donc bu njëkk ba koo waxoon machine bi ma dem ba traduire automatiquement du la gëm. moo tax ma ne la lu ñu gën a dem par exemple dinañ dem ba nga xam ne nii. Mhm. Euh, xam nga jël benn nit mu lay liggéeyal sa kër. di di ko mhm. nettoyer. Mhm. et tout ça xam nga loolu yombut a automatiser. non mais lu ñu gën a dem dinañ dem ba am ay robot yoo xam ne nii dañu mun a nettoyer kër. ménage kër bi palaasi affaire yi ah kon xam nga ne moom luy gën a dem muy gën a ah, muy gën a gën a gën xam naa bu boobaa nag boo waxee rëboo bi ne ko fii setul moom xam naa loolu tontu tontu bu naqari quoi waaw <laughs> te dinga am yenn avantage voilà gis nga <laughs> alors mais je pense que alors je pense comme ni nga ko waxee noonu leer na mais aussi dama bëgg aussi comme léegi tey euh, épisode bi jeex je pense que déjà ñu ngi xabaabal ñu ngi dem na parce que waxtaan bi dafa neex trop alors selon yow ci sa expérience ak sa jaar-jaar naka nga gisee rapidement avantage yu euh, kii avenir u intelligence artificielle ak yan jafe-jafe nga ci mën a seetlu ci ni muy doxee rapidement. Euh, je pense que peut-être foofu noonu. je pense wax nañ déjà avantage intelligence artificielle lu mu mën a defee tout ça. si si après peut-être inconvénient yi mooy que ni voilà intelligence artificielle. Mm. côté éthique bi vraiment y a beaucoup de soucis actuellement déjà il des entreprises yoo xam dañuy am carrément équipe yoo xam loolu euh, nga xam ne pour IA yi bañ a mun a joxe décision xam ne nii c'est c'est c'est biaisé quoi que ça soit raciste. ou mm-hmm. sexiste affaire yooyu. ok day am Google rek am na temps da ngay joxe benn image mu donc golo moo ci nekk muy la mhm. euh, nit moo fa nekk wala ñu nekk fu moo fa nekk parce que nit bi dafa ñuul parce que am euh, donc voilà donc grave quoi c'est exactement des fois même nga laaj ay affaire ñu toll du n'importe quoi aussi euh, mhm. beneen problème bi ma gis mooy données yi donc instance mhm. actuellement dafa laaj données yu bëri pour dox ok alors que nit par exemple nu muy jàngee laajul données yu bëri pour dox en tout cas données yu bëri yu ñu labellisé loolu tamit gars yi ñu ngi ci liggéey bu baax loolu je pense que dina xeetali ba xam ne dans le futur. Mhm. Euh, proche même dans le futur proche dinañu mën a def IA sur des données vraiment très petites. comme ay boo xoolee a reconnaissance vocale olof ci ay Google amoo synthèse ci Google parce que am données yu bëri donc buñu demee ba ci kanam ba affaire gën a évoluer pour ma mhm. côté yi a mën bu baax baax pour ma IA ñaari limites yooyu daal mooy yi nga xam ne ni vraiment ñoo gën a nañ ko ci seetlu quoi waaw ci man quoi waaw ok ok alors rapidement bon c'est bon je pense que rapidement aussi euh, beneen bi ma la bëgg na laaj mooy est-ce que xalaat nga ni un jour IA war na mën a dépasser doomu aadama. Euh, je ne pense pas vraiment yaakaar mu ko parce que. Mhm. par rapport ak li ñu am instant yi dañ ko sori de trop de trop mais comme j'ai dit on ne sait jamais mhm. parce que li ma lay wax rek bu njëkk ba. traduction comme ko wax nit auto machine dina ko def mais lu mënul nekk. ba nga xam ne temps yi nga xam ne nii mhm. mënuñoo am sax machine boo xam ne nii mën na afficher texte. par exemple wala temps yi nga xam ne nii amuñ sax électronique. Mhm. xam nga àdduna moom waa day dox. day dox day pour man wax dëgg fa yàlla lu jafe lay nekk pour ñu mun ko am waxuma ne sax mu dépassé nit mais mu tolloog nit rek laay wax man. mooy strong AI boobu ngay wax. <laughs> voilà strong AI bi wala. wala super super kii. <laughs> waaye ça c'est voilà super IA bi yow strong rek yaakaaruma ne dinañ fa mos a yegg mais on ne sait jamais mais vraiment on sait jamais quoi technique yi ñu am actuellement. Mhm. vraiment on est trop trop loin de ça quoi. alors alors am na aussi ay jafe-jafe yu ànd ak IA bi c'est-à-dire euh, par exemple mu ngi mel ni euh, voiture intelligent yi des fois mën nañ ko dawal mu mbëkk benn nit ñu ne responsabilité bi fan la nekk alors alors lan nga xalaat ci euh, cadre juridique bi nga xamante ni war nañ ko mën a def ci wàllum intelligence artificielle bi ba mën a aar aussi doomu aadama je pense. faut dire que cadre juridique bi instant yi bon y en a pas beaucoup quand même <laughs> parce que lu bees la. Mhm. Euh, cadre juridique bi am instant yi c'est surtout côté données yi. donc okay. données yi données public comme boo gisee ay RPG ay affaires yooyu comme Europe affaire yooyu ñuy protéger wala ay Sénégal fii comme sur données personnelles et tout ça. mais côté impact maanaam a jël décision. Mhm. ñu xam kan la ñuy punir. loolu moom mhm. vraiment gars yi kii parce que c'est quand parce que IA bi complexe ouais. souvent dañ naan la affaire bi. à tes propres risques et périls. ah oui ah dans oui, plupart ah des cas IA yi utiliser dañ naan la voilà am nañ yaakaar confiance bi lii la mais mun na juum. pare nañ ci donc boo jëndoo oto bi ngay wax noonu ma jaay ko ma ne la na juum. Mm-hmm. tu le prends à tes propres risques c'est fini cas juridique bi je direct. <laughs> ah a par exemple état. voilà état mooy ñëw ne voilà loolu doyul état de façon comme d'habitude état day ñëw xool. par rapport ak risque yi mu ne ah non non lii du la bàyyi nga jaay ko sama population mais sinon gars yi développé moom duñ jël benn risque waaw ñëpp gars moom ay cobaye lañ quoi dañuy testé rek lii du ko nangu lii dinaa ko nangu ok ça c'est parfait alors alors je pense que Thierno ñu ngi presque ci jeexitalu épisode bi mais du dem te laajuma la naka nga gisee l'intelligence artificielle fii ci Sénégal ma fàttali aussi que ne euh, bokk nga si ñi créé Galsen AI euh, di kuréel bu am solo ci wàllu intelligence artificielle fii ci Sénégal allez-y. Euh, je pense Sénégal côté je pense pour wax Sénégal côté AI y je pense deux aspects deux volets qui son importants mooy côté communauté bi ak côté entreprise. ok euh, côté communauté bi je dirais que on s'en sort pas mal comparé au, au d'autres pays de la sous-région en tout cas. ok euh, avec Galsen AI mais même am na bu yàggul rek ki jigéen ñi créé nañ benn communauté pour jigéen ñi gën a mën a dugg ci affaire bi. macha allah euh, AI kii Dakar ko mm-hmm. mën donc mm-hmm. voilà foofu gars yi ngóorgóorlu te communauté yi on on arrive à avoir des personnes lors de meet-up ça veut dire gars yi intéressé wu nañ ci affaire bi euh, on a aussi des gens qui acceptent de présenter et tout ça euh, mm-hmm. donc côté boobu pour man ñi ngi avancé nànk-nànk même si on avance pas à grands pas comparé okay. par exemple à l'Afrique euh, anglophone Nigéria wala communauté bi foofu gën a par rapport ak fii donc malheureusement c'est pas que l'IA loolu moom côté la foofu daa war a liggéey. non eh, dinañ ci càmbar il ñu càmbar affaire boobu xool la mooy problème bi. <laughs> voilà côté communauté bi moom yaakaar naa jar na podcast quoi. bu jëlee invité sax bu mag sax ñëpp la ñuy invité. incha allah vraiment jar na ko parce que c'est pas facile on rencontre ah pas mal de difficultés. côté entreprise yi. Mhm. Euh, je yi il ñi koy utiliser souvent ñi ma xam en tout cas. Mhm. c'est surtout télécom yi tel bu ko téléco téléco yi ay Expresso. Mhm. orange wala ñu ay tigo ñooñu daal ñu ngi ci góorgóorlu nànk-nànk di utiliser ay données pour créer des modèles prédictifs et tout ça à part ñooñu bon c'est vrai que ñoo ñoo am données yu bëri quand même. waaw waaw ça c'est sûr euh, ñoo mm-hmm. di ko utiliser souvent. di aussi on a très peu de start-up par exemple BAMT bi may liggéeyee. Mm-hmm. à part BAMT parce que personnellement je ne pas start-up boo xam ne nii dañuy liggéey carrément ci IA di defar ay produits di def consulting étranger côté IA. à part Bam bi ma nekk man je connais pas bon y' a aussi pardon y' aussi l' la ADN Code mais à part ça gisumay startup yoo xam ne tamit. vraiment ñu ngi liggéey carrément ci bi quoi. ok foofu war nañ ko bi euh, man sama wala man xam naa nag des fois dañ naan damay am ay rêves yoo xam ne dañ naan ma c'est utopique tu nekk mais je pense que war nañ mën a yëngal jusqu'à que Sénégal brille dans tous les sens quoi tu ci IA ci développement ci euh, yeneen technologie yu bëri bëri je pense que euh, année 2021 bi ma dama koy wax rek mooy année année de la tech la war a doon quoi tu vois ñëpp dañoo war a yëngu comme ça euh, voilà euh, communauté yëpp yëngu daal macha allah alors Thierno ban conseil ngay jox bépp sénégalais ak jeunesse entreprise yi ak start yi ak ñëpp. côté IA bi nest pas ci côté IA bi même aussi sur affaire auto-entrepreneuriat et tout ça là c'est open quoi tu peux tout ce que tu veux voilà. Euh, je pense que j'avais surtout focalisé côté IA bi côté parce que côté auto-entrepreneur xaw ma si lu bëri. waaw ah, ok vas-y dama ñëwal ci IA bi kon donc. Euh, je pense que je pense que peut-être si nga waxee sànq mooy Sénégal affaire yooyu dox ko techno mhm. pour man. Ouais. Sénégalais yi jeunesse bi et tout ça heureusement mhm. ñun am nañ jeunes yoo xam ne dañoo xarañ ci affaire yi. que ce soit développement IA et tout c'est pas la compétence qui manque ici et aussi bëgg xam loolu loolu loolu mooy problème bi fii problème c'est peut-être encadrement bi mm-hmm. euh, environnement bi dimbali mm-hmm. start-up yi euh, poussi nit ñi ñu ñu nekk ci affaire yi pour man foofu moo jar liggéeyaat donc foofu da da lay may confiance quoi boo xamee ne compétence mi ngi fi mm-hmm. voilà parce que on a pas mal de Sénégalais yu nekk étranger def affaire yu baax euh, pour man jeunes yi gën a jàng nangoo nangoo découvrir ay affaire parce que comme ay communauté de garçons yaa loolu mooy objectif mais mooy vulgariser ba gars yi gën a dugg ci affaire yi parce que dès nga dugg da nga xam ne jafewul. jafewul si si euh, si si donc. ah déjà man ay podcast rek podcast rek lay def nii maa ngi commencé comprendre ay affaire quoi ah. <laughs> voilà voilà donc vraiment c'est pas compliqué pour man jeunesse moom vraiment c'est simple pour man moom mooy jàng. ok mën def loolu dong la ñu war a def entrepreneur yi peut-être ñoom ñu gën a. Mhm. entreprise du moins ñu gën a xool. Mhm. Euh, parce que c'est pas simple quand même mhm. xool. nan la ñuy déjà amee politique de am ay données di ko di ko stocké parce que ça coûte quand de la un euh, ak tamit yan use case lañ mun a xalaat s'il le faut ñu woo ay nit yoo xam ne dañoo nekk ci affaire bi ñoo xam ne yan ñu ko defee war na mën a améliorer seen business parce que loolu tamit gars yi souvent duñ ko gis nii il faut que nga ñëw wax leen li ak boo ko defee war na mun a dimbali euh, pour nga am li ak li peut-être dernière kii bi mooy mhm. état bi ci boppam nag moom jàpp ci affaire yi mhm. euh, Euh, mhm. gars yi dinañ mën a gën a sawar ci affaire yi comme ay boo déggee ñu ne am nañ am nañ euh, ñu koy war centre de calcul xaw ma lan affaire yooyu. waaw waaw à disposition nit ñi mën koy utiliser développer ay IA yu am doole. Mhm. Euh, parce que loolu mooy problème bu gën a gën tamit à part données yi beneen problème mooy ay machines yoo am puissant pour def calcul yi donc pour ma état war na mën a jàpp ci loolu. jàppale entrepreneurs yi nga xam dañuy liggéey ne dañuy liggéey ci IA. si on n'a pas ça c'est difficile macha allah macha allah alors li ma jàpp ci li nga wax mooy jàng mën def. état bi jàppale ñu ay centre de calcul yëpp gars yi mettre ko à la disposition des euh, des communautés pour que ñu mun a avancer ci wàllum intelligence artificielle jàng mën def état bi aussi na ci dugal loxoom comme ça jeunesse bi communauté yi start bi ñëpp mën a avancé ci wàllu IA parce que je pense que ni comme ni ko Mbaye Babacar waxee woon IA nekk na affaire boo xamante ni c'est l'avenir quoi il faut que Sénégal kenn bu mu ñu ci euh, bu mu ñu raw yenn raw yi donc nañu jël euh, voilà suñuy matuwaay pour nekk walla euh, nekk ci kanam quoi ci wàllum IA alors. émission bi nag ah. non tu as dit que l'IA c'est l'avenir ma ne et le présent et le présent waaye <laughs> tu as raison nga dëgg moom ah c'est alors je pense que nag épisode bi jeex na parce que bëgguñ mu gudd gudd gudd noonu tu vois liñ war a waxtaan. Ah. bëri na trop trop trop man instant bi li mu question yi ma am dafa bëri trop mais xam naa ne xajul ci benn épisode donc du coup euh, dañuy yemale fii épisode bi lan moo nekk sa mot de la fin. Mhm. déjà merci pour invitation bi euh, mm. parce que pour man liggéey bu ngay def ci olof bi et tout ça ak mot de fin bi peut-être mooy juste wax gars yi. bu mhm. ñu ragal bi ñu ñëw. parce que pour man képp ku mën a développer déjà rek y a presque def <laughs> cinquante pour cent ou plus pour ñëw mën a def IA bi parce que man mi développeur laa nekkoon avant donc xam naa li may wax. donc voilà pour gars yi gën a ñëw daal gars yi gën a ñëw gën a sonn ci affaire yi jàng mhm. comme li nga wax rek jàng liggéey mun def boobu daal. foofu daal laay soññ gars yi pour ak man sama bopp tamit. ok <laughs> macha allah ñu nekk ay. ah non yow yi déjà yaa ngi ci kaw quoi déjà yaa ngi ci kaw. non man bu baax a baax. <laughs> déjà yaa ngi kaw non mais dinaa la jege si foog ma jege si la comme ça nga jox ma ay bagages man di ma mun a voilà euh, exceller un peu ci ay intelligence artificielle bi quoi parce que am na solo. ah dara ñoo far façon liggéey bi rafet na lool wax dëgg fa yàlla jaajëf merci beaucoup merci alors merci beaucoup ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ah, di sant di gërëm ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy suivre ci réseaux sociaux yi LinkedIn Instagram Twitter Facebook tu vois gis nañ encouragement yi gis nañ lépp ñu ngi leen di sant leen gërëm bu baax alors merci beaucoup thank you jërëjëf foo leen mënta nekk ci àdduna bi passez un très bon week-end et jàmm ak salaam mbégte ciao merci